Gorgui Yacine booy maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen ziar yéen ñëpp euh, waa Rewmi FM. voilà Gorgui Yacine Boye nga bokk ci cadre ex parti Pastef membre parti bi au niveau de Rufisque Ouest déjà euh, comme info yi nga gis muy circuler que Ousmane Sonko mi ngi am tan bu baax gannaaw hospitalisation bu yàggo hôpital principal ñuy wax ni sax euh, xam naa fan yi rek dinañ ko delloowaat ca prison bu Sébikotane naka nga gisee yooyu information. di sant yàlla di sant yàlla di parce que ñëpp ñëpp ñëpp mettitlu nañ jàppale ko ñaanal ko bu ñu déggee information que ne mu ngi mu ngi tane ba dañ ko bëgg a delloowaat ñoom dañ ko bëgg a delloowaat euh, prison Sébikotane dañuy sant yàlla di ñaan yàlla mu génn dellu si famille incha allah te ñu ngi sant tamit si état de santé biñ ne biñ joxe information ñun tamit xam nañ. ñu ngi suivre te xam nañ ne ñu ngi sant yàlla daal loolu daal lañ ci mën a daal sant di ko ñaanal mu gën a wër te mu gaaw dellu si waat si si si si ñun. voilà léegi kon euh, Gorgui Yacine euh, Boye kon euh, d'accord ngeen Ousmane Sonko tane na ñu delloo ko Sébikotane xanaa laajatoo leen liberation comme ça mu génn si kaso bi dellu si këram. non si sama tontu tontu wax naa la ne ñu ngi ñaan yàlla mu dellu si waat si famille kon ce qui veut dire que ni. ñun su ñun ñun doon décider rek du sax nekk foofu du nekk fële dinañ ko suivre feneen lii ko dal du ko duñ ko yegg si mais nag dañuy dañuy dellu delloo lépp suñu borom gëm na ne dina génn si situation gëm na ne dina delluwaat si famille dina dellu si famille naturelle am dina dellu si famille politique mu li ñuy ñaan daal mooy comme ñu ngi sant jot nouvelle yu rassurante jot nouvelle yu baax dalal xel que ne mu ngi wér ñun ñu teg loolu lañuy dool lañuy ñaan mu dellu si këram dellu si si ñun ñun ñëpp ka nam Sénégal ñëpp ka nam mhm. euh, fi toll ni nag coow li bari na góor gi Yacine Boye ñu bari ñu ngi wax ni est-ce que euh, jotul daal euh, Pastef wut benn plan B parce que candidature Sonko wóoratul ak le dossier yi nga xamante ni moo nekk ci ndoddam est-ce que yéen a ngi préparé seen plan B boobu non lu jëm si plan B ñi ko ñi ko def teg situation bi ñu toll nii ñoom ñooy indiwaat information au plan B ñoom c'est Sonko ki dérange ñun si Sonko notre leader ñun Sonko mooy suñu candidat mhm. d'ailleurs sax ñu ngi préparé parrainage xam naa après nañ si ñëw mais ñu ngi koy ñaanal yàlla mu dellusiwaat si fameem dellusiwaat si ñun ak en bonne santé te on fera focus sur deux mille vingt quatre ñun ñun plan programme ñiy tawax ay plan B ak ñiy wax ak yi ñun loolu suñu programme nous on a un programme nous sommes un parti bien organisé nous sommes une organisation politique boo xam ne am nañ am nañ feuille de route am nañ fu ñuy teg suñu tànk am nañ fu ñu teg suñu bët ñun on se focalise pas sur sur sur le programme des autres Euh, d'accord léegi kon euh, yéen daal euh, est-ce que ragaloo leen li daloon waa PDS ak taxawu Dakar bu Khalifa Sall dalaat leen comme li leen daloon en 2019 parce que dañoo jàppoon rek ci candidature Karim Wade ba gis nga fi mu mujjee de même que côté ñi àndoon ak Khalifa Sall en 2019 yéen en 2024 mu mel ni da ngeen bëgg dundaat lu mel noonu parce que yéen a ngi focaliser wu ba léegi ci candidature bu Ousmane Sonko. comme comme ni nga ko waxee rek dafa mel ni c'est un programme bien défini par par l'État en place mooy que ne wax nga candidat wu Karim Wade wax nga candidature wu Khalifa Sall euh, ak réponse bi nga xam ne seen partisan wala seen seen seen i ñooñ seen i indil nañ ko non passif c'est autre chose bien vrai que notre leader notre président il, il est actuellement entre leurs mains mais ñun ñun suñu programme dañ ko continuer ñun ni ñu koy ni ñuy xeexee ba génn ko foofu. si des arguments clairs ak ay kayit yu leer ak lu leer lu fànn yu leer lépp ci yoon dinañ ko génne foofu te mooy ndoot suñu kii candidat moo tax on on parle même pas de on pense même pas au plan B ou au plan Z l' mooy que ne on a un programme on a un plan am nañ euh, une organisation bien fait am nañ ay leaders am nañ ñoo xam ne ne war nañ mën a porter la voix e incha allah nous allons et le combat comme il faut. Mm -hmm. a on en face ñoo xam ne tamit dañuy teg seen programme mais ñun tamit dañuy teg suñu suñu kii dañuy continuer doxalin suñu doxalin ba xam ne ne tekk si yoon aussi tekk si yoon ba nga xam ne ne ñun dëgg gi ñu xam ne ñun ñu moom la ñu wax ne si dëgg googu lañ ne dañ si dañ siy wéy incha allah dinañ dinañ dinañ am ndam. am na ñoo xam ni sax euh, fi ñu toll ni ñu ngi laam-laamee ne boo moytuwul euh, Guy Marius Sagna mooy nekk plan B wu Pastef parce que gis nañ ko muy amal tournée au niveau de la diaspora euh, dem seeti sénégalais yi nekk ci diaspora bi te ñëpp xam nañ sénégalais yi nekk ci diaspora bi aussi am nañ doole ñu bëri daa gis ni posture Guy Marius Sagna moom mooy su Sonko mënul dem ngeen jiital ko looloo si tontu dañuy rafetloo Guy Marius li muy def Guy li muy def moom la yeneen patriote yi def moom la ñeneen man sama côté maa ngi def li mu man keneen keneen mais dañuy rafetlu moom li muy doxal mais quant à ñuy xalaat un autre plan loolu c'est un aveu d'échec départ fi mu ne li muy doxal nii même bu fekkoon euh, président ko mu ngi dina ko doxal dañuy rafetlu li muy doxal di ñaan yàlla président Sonko génn am dooleeku si doxalin bi nga xam ne kii mu ngi koy doxal ak ñeneen ak ñeneen ku nek sa wàll yaa ngi koy béy di sa waar si pour prochaine séance si mais nañ nañ rafet njort rek que ne président dina génn si jàmm na génn si jàmm am nañ yaakaar boobu te ñun gis nañ ne ni ñuy doxale yëpp si yoon lañ ko teg ak si si si gëm constitution bi si gëm doxalinu charte réew mi et voilà c'est c'est des raisons politiques et nous allons surmonter ça incha allah dinañ ko jéggi dinañ ko jéggi. Mm-hmm. Euh, Gorgui Yacine Boye parrainage bi euh, démarré nañ ko officiellement ci vingt sept euh, septembre bile kon passé fi ñu toll nii commencé ngeen wàcc si terrain bi pour ut ay parrain wala. waaw démarré na tey. ñu ngi siy sant yàlla si programme bu politique bu Sénégal réew mi charte réew mi la bokk dañ si même buñ si d'accordul à cent pour cent tamit dinañ si dem comme ni nga si daan demee parrainage moom du doon problème pour ñun on est prêt euh, côté bi ma nekk Rufisque Ouest dama lay saluer ñëpp di rafetlu waa Tëngéej ni ñu taxawee te Rufisque Ouest ils sont prêts ils sont prêts à aller sur le terrain à jëli suffrage euh, nu mu tudd maa ngi wax sa suffrage mais pare naa yi citoyens yi rufisquois yi ñëpp maa ngi tàllal loxo ñëpp mais ñu allons descendre sur le terrain te nu sommes bien préparés te xam nañ ne fi ñuy aw xam nañ yàgg nañ ko def léegi suñu objectif mooy plus de deux millions d'électeurs plus de deux millions de sénégalais plus de deux millions de de pacifiens wala ñeneen ak ñeneen ñu jox seen baat ñu ñu ne suñu candidature président Sonko te incha allah on va partir sur sur sur sur sa candidature on va présenter les Sénégalais l'offre politique des fien et de no de no de nos de nos citoyens de nos de nos de maa ngi juum sax maa ngi kii ñi nga xam ne dañuy jàppale euh, suñu doctrine suñu suñu suñu suñu suñu xalaat mm-hmm. ñun ñi nga xam dañ dañuy ànd ak ñoom tamit si si coalition bi dañuy dañuy ñaan yàlla rek ñu bokkaa ñoom xalaat ñu ànd ànd bu rafet ba pare jëli jëli li nga xam ne sénégalais yi moom la ñu tàllal hmm. am nañ si yaakaar si ñun hmm. te incha allah parrainage du doon problème hmm. pare nañ waaw moom man côté bi ma nekk Rive Square sa pare nañ ah Rive Square sa pare nañ te nous allons déranger sur le terrain incha allah euh, léegi euh, naka nga gisee pour yow en si sa jàngat lan mooy enjeu yu élection présidentielle yu 2024 waaw ñu ngi jëm si élection yoo xam ne enjeu bu am solo la pour aussi bien pour Sénégal ak euh, sous-région bi en Afrique de l'Ouest bi ñu ne ak ak continent bi Sénégal dafa doon référence sur le plan politique doon référence si yu bëri kon bu ñu jëmee deux mille vingt quatre muy doon élection wu ndaw ñi ndaw ñi laay xalaat laay wax ñi nga xam ne samay morom lañ ñu ma mag tuuti ak ñi nga xam ne ñoo ma gën a suufe ndaw élection yoo xam ne dafay décider pour le l' avenir de du du du pays ak avenir u continent bi dañu war a dema décoller sur le plan économique ak yu bëri yu bëri yoo xam ne chantier yu bëri taxaw na suñu kanam te am nañ yaakaar ak yaqiin que ne sénégalais ils sont prêts am nañ maturité bi pour mën a porter ce pays vers vers vers vers l'essor démographique vers l'essor économique yi yi nga xam ne ñëpp dañ si war a jublu événement am ñu jëm ni deux mille vingt quatre mhm. c' est des décisions c' est c' est un gouverne c' est c' yoo xam ne bu ñu si génnee dañu war a jublu si defaraat dañu war a jublu pour yëkkatiwaat économie pays bi yëkkati économie euh, corminal donc ñun pare nañ pour comme li ko passé fee xalaate comme ñun si ñu ñi ñuy àndal ñi ñuy jàppale ñëpp ñi xalaate ni ñu pare nous avons une génération d'or une génération boo xam ne am nañ quantité bi am nañ cawarte bi am nañ taxawaay bi pour jëmale Afrique ak ci kanam loolu mooy suñu objectif boo xoolee parce que ni ñu ko tuddee euh, parti panafricain la donc xalaatuñu pour Sénégal rek mais dañu xalaat pour l'essor de l'Afrique kon nag Pastef war na mën a porter doon étendard en Afrique de l'Ouest ba pare Afrique bi yëpp référé aussi ñun donc élection yi jëm élection yu tijjeeku la élection yoo xam ne ah génération bi ñu si nekk nii ma avenir Afrique si lay si lay si lay jublu Sénégal référence na en Afrique Sénégal euh, sur le plan politique ak bari bëri te yàlla def na tamit sur le plan des ressources naturelles Sénégal yàlla wërsëgal na ko kon nag ñun war nañ mën a mën a politiquement am am ñoo xam ne ñoo ŋànk suñu suñuy suñuy destinée politique pour mën a porter euh, a porter li Afrique di di di sabablu loolu tax am nañ ci yaakaar trop daal am nañ ci yaakaar wax dëgg mm. yàlla. question gox Yacine Boye naka nga gisee candidat wu euh, Benno Bokk Yaakaar euh, di Amadou Ba nga xamante ni moom la président Macky Sall ngemb ngir mu jëlaat nguur gi en deux mille vingt quatre naka ngeen gise candidat wu Benno. bon man dama doon koo xam ne comme pacifier yëpp. ñun on prend tout tous les candidats au sérieux tous les candidats au sérieux je me focalise pas sur un seul candidat rek mais candidat yëpp laa jël au sérieux te candidat yëpp laa jël que ne dañu am ambition pour pour développer notre pays néanmoins ñun suñu plan suñu programme suñu yaakaar nañ la meilleure offre pour tout tout tout le Sénégal pour tous tous les Africains kon candidat wu bi nga tudd comme yeneen candidats yi nga xam ne dinañ génn ci parrainage yi dinañ génn ci si ci ci ci li ñu teg yëpp pour mën a dem ci élection présidentielle deux mille vingt quatre yi dinañ taxaw ñun ñëpp la ñuy jël au sérieux on prend tout au sérieux mais on on on ñun dañuy yaakaar que ne suñu plan suñu programme suñu suñu mbébét ak suñu lépp moom mooy la meilleure offre kon nag ñun yaakaar nañ ne ñun dañuy jiitu ci kanam quoi loolu lañ xalaat bon mais nag on prend au sérieux tout tout le monde on prend au sérieux tout le monde on respecte tout le monde aussi. Gorgui Yacine Boye maa ngi lay remercier bu baax a baax. merci man maa ngi leen di remercier di leen gërëm. voilà may fàttali Gorgui Yacine Boye membre nga euh, ci les cadre de l'ex parti Pastef euh, bokk foofule ca Pastef euh, Rufisque Ouest donc merci beaucoup Gorgui Yacine Boye. merci merci merci c'est moi qui vous remercie.